ay bintandoo yi mm-hmm. ah mu nekk ci groupe whatsapp bi nekk Wadeen family ah di kontaan si ñoom di nuyu waa Sàngalkam di jël nuyoo bi di ko teg si ah, Adja Mantulaay Càndum mu joxal ñu ko góor ñëpp góoru laay ni nekk Sàngalkam mm-hmm. di jël nuyoo bi tegaat ko si ah, Baye Njaga Wadd mm-hmm. mu jotal ñu ko góor ñëpp laal ah, Adja Oumy Ndiour laay ñu ngi lay mm. siyaare waaw di dem bari ñi xam nga di mm. siyaar yaa fóoti mu wàdd moom tamit di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mm. di jël nuyoo bi tam teg ko ci euh, loxo Baye Thian Wade mi nga xam ne moo nekk Wadeen waaw dem ba campement ngi xoox rek campement ah. ngi xoox ah. yaa may mun a ñang suñu yaa may mun a ñang Seexu Xaadir bu mag boobu ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal fi yàlla ko fi sàmm ko sàmm ak ñi nekk campement ngi xoox ñëpp waaw taxat dañu xol dëlëg bu saf sàpp rek ñu jóg ak moom ah, waaw barke Baye laay ndox ma neex teenu jàmmalaay teenu zamzam ñamal ta seet Moustapha tëdd fa jàmmalaay si leen ji soote baa ngir maamu kumbandooy muy mu aaya ndaamu lii ngërëm la ca limaamu la سنا مريد المعايا نوام لينغرام لا جلمام لا Imamu kumbando Waitul mu'ayana nu'ad Lingaram wa talimamu yàlla yoon ni ka si der ba ñoo janta fenk di rasool soo daan wi si leen ji ca woote ba ngir matal farata imaamu kumandooy waytul mu aaya naanu alal lii ngërëm la ca imaamu la wallaay réew mi li fi am si ay ngëneel fii ci baal ñun ñu toog gëm limaamu laay réew mi li fi am si ay gane fii ci saw bi la bàyyi ko yóbbu seen kër daw del si waat ñun ñu toog gëm limaamu laay daaru yi si leen ñi soote baa ngir matal farata limaamu kumbandoo ca limaamu la bari laay abdulaay jaw yóbbaale na foofi mën a jëm yóbbaale na saadaan abdulaay suma coppaale na abdulaay jaw yóbbaale na mamboy abo abdulaay jaw yóbbaale na suma cofeel si yow suukar a xalem danoo mel nar ba gul noonu ay gëlem maa la nuro legel imaamu la soo daaluy si leen jin ca woote baa ngir matal barata imaamu kumandoo mooy tulu mu aaya daanoo am lii ngërëm la ca limaamu la laay teenu zam-zam ñamal kese Mustafa te dafa jàmmal soo daaluy si leen ji cawoote ba ngir matal farata maamu kumbandoo waytul mu aaya ndaanu aaya li ngërëm la ca limaamu la réew mi li fi am si ay nga ne yi la bàyyi ko yóbbu seen kër daw del siwaat ñun ñu toog gëm li maamu la soo daal wuy si leen jin cawoote ba ngir matal farata yaa sunaam muy tulu mu aaya daanu yaa